maaleykum mbokk internet yi seetaan suñu ay différentes plateformes ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jox seen wàccuwaay toujours rek ñuy topp actualité toog koo xamante ni euh, vraiment ci li nga xamante ni moom moo xew ci réew mi euh, da ci am euh, wàll bu baax a baax muy Serigne Mbacké Serigne Mbacké bu Cheikh Amar Serigne Mbacké bu wa bu Balla Gaye numéro 2 ah Serigne Mbacké bu Pape Diouf ah la génération consciente moom lañ toogal tey fas yéene waxtaan ak moom. Euh, tàmmul nag lu muy def ay sorti mais tey waxtaan bu am am solo lañ nar a waxtaan te incha allahu rabbi euh, boo leen toogee scotché rek euh, xaar li nga xamante ni moom mooy émission bi di ngeen découvrir une personne boo xamante ni ma ngi def liggéey bu am solo ci réew mi mais bala ñoo sori dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyoog yéen mbokk internet yi ñu soog di tàmbali waxtaan bi sëñ Mbacké maa ngi lay nuyu di la ziar di la bàyyi nga nuyoog mbokk internet yi. waaw Mass maa ngi lay fay bu baax a baax du nuyu waa àdduna rawatina waa Sénégal du ñëpp. di la jaajëfal yow encore une fois di jaajëfal euh, ñi nga xamante ni ñoom ñooy euh, yor buumu jokkoo bi yow ku mel ni yow waaye du nuy bu baax a baax Maas du nuy Mbay waaye du nuy Mohamed di la jaajëfal euh, Gallo di ñaan yàlla sunu borom defal la jàmm defal ko ñëpp defal ko ñi ni seetaan yàlla defal nu ñu am nawetu jàmm ci barke Seydouna Mohamed du nuy bu baax a baax Cheikh Mouhamadal Bassir Serigne Mountakha yàlla na fi yàgg tàmm gu wér di nuyu Serigne Babacar Sy Mbaye Sy Mansour yalla na fi yag tàmmagóor ak kilifa diine yeb kilifa ada yeb di ñaan yalla sun reew mi yalla na fi yalla def jam ci barke Serigne Touba. amin amin serigne bakay yalla na yalla nangu ñaan yeb alors euh, waxtaan bi niñ koy tambalé nak moy nga def une brève présentation de ta personne nga wax ñu kan moy serigne bakay euh, fan la juddo fan la yaro jaar-jaaram ñu résumé ko rek pour mëna mana xam exactement kiñ togal kan la. waaw bakay min dafon yalla la comme ñep ndax yalla mo ne wala xadd karab banni adama lu ma bind rek doomu aadama moom ci gënal tey ban ma dalee laaj question ba tey musunun ma laajee fii ma tàmbalee ndax olof nee na lu waaye di wuyoo na ko nuru li ma njëkk laaj ne ma kan mooy sëñ Mbàkke ak fan la soqi ak sëñ Mbàkke mooy kan waaw damaa soqi koo ci askan wu baax sama baay juddu doon jullit doon ab taalibe waaye rawatina doon taalibe bi sëñ Mbàkke Madina mi ma tuddee nekk nit ku baax Pikin gila judo. juddoo. sanu kër ak kër ki nelaam ñetti ñetti ñetti kër la woon ba ma juddoo sunu kër Pikine mën naa ne kër ki nelaam la yaro xam nga lolu du tay sama papa nek nit ku bax ñukay wax Murid job waye dem na ba turum bobu liko xawon na a nëbbu tuuti entreprise bimu nek nekkon difa liggey ba retraité fa muy muy muy muy Nestlé Sénégal ñukay wax job Magie ma yoroo ci keppaaram mu yar ma fi ma war a yare def ci man liwar war dugal ma ma jàng alxuraan dugal ma ma jàng école def ci man fulla def ci man fayre def ci man jom kon bu yàlla dogalee tey jii ma ci keppaaram moom sama waajur boobu yàlla na fi yàgg loolu te amug wér ma gis ko mu nekk jàmbaar yar ma ci liggéey lu ne jaay ko def naa marchand ambulant barke alxuraan billaahi wallaahi tabaski jot na ma dem jaaye ji ay paaka ki jaasi bu été jotee ma dem jaay ji ay caleçon vêtement jaar naa foofu yëpp nawet jot ma dem jaayali ji sama yaay ay cuuraay rangoo ko. cuuraay billaahi dem naa fii yi yenu naa bu ngoon jotee ma jël xoolite carotte yeeg yóbbu sunu waa kër xari pour ñu lekk loolu yëpp jaar naa ci. yàlla mi dara tawul di la dimbali di la dimbali ngay soox di soox ba suñu joon yàlla tey ji ma am tamit waay jur bu baax a baax bu jigéen. Cundemba Yacine Sagor Baba Yacine Sagor Alpha mi ci koos man dama bokk ci famille yoo xamante ni famille yu riis lan fami yu baax ndax Malick Sarr cun sama maam moo dara woon na gaynde gi fàdd gaynde gi def une semaine mu mu mu génn àdduna ah, daa fàdd lu mu war a fàdd ñun pour ñun lu taxaw suñu kanam rek dal lay fàdd waaye nag bu sooy waajur defee ci qualité yow yu baax yooyu nga màgg ñu tuddee la nit ku baax tur bu baax xamoo lu dul lu baax looloo ma topp tey ban ban lu baax rek laa xam. sëñ Mbacke bëgg baax. ñaata ñaata euh, Sénégal ñaata ñaata ñaata millions d'habitants moo fi ne. na ñu foog naa ñëpp bëgg lu baax de waaye benn tur moo fi am boo nee sëñ Mbacke Diop teg ci. bëgg lu baax tur woo moo ma sonal. dàkkantal boobu moom ma sonal man lu baax lu ne maa nga ca waaye fu ñuy waxee lu bon ak di ko fa yaakaare di ko fa wax duma ma fa xand du fa jege xawuma ko. xam nga sama papa Diop Massi leen koy wax imam bi nekk ak ñun sunu koñ maa ngi koy nuyu de passage imam Kebe dafa na ko yow de ñu ngi lay wax Diop Massi waaye sa tur woowu de dama ko bëgg a dàq sama papa na ko tur woowu daa yàgg de mu ne ko sama papa na ko noo may woowee mu ne ko Diop Pouso. Ah, day ñaw mu ne ko yow da ngay ñaw rek looloo ma topp nag. loo gis ci lu baax rek maa nga ca. waaye loo dégg safaan mën nga ma caa tudd mais bokkuma ci. Hmm. du ragal de. dama ko jomba def nak àdduna ñaar rek am def lu def lu bon jomba wax lu bala wala jomba wax lu bon mais man yu bari dama ko jomb nak amna na loo tay ni tey boo ma def ko bu ko sa mbàpp déggee sa mbàpp bu ko déggee li muy njëkk a wax kooku de du sëñ Mbàkke ma ma xamoon lu baax la ma xamee lu baax laay dox lu baax laay wax ci lu rek dox ma jo bëgg lu Mm. loolu moo waral sëñ Mbacke Diop bëgg lu bëgg baax mais euh, bi nga defee yooyu yëpp nag ci jaar-jaar yu métti yooyu yëpp parce que tamit am nga ci mérite ndax góor moom liggéey rek la war a def waaye dañoo dem ba seetlu ne ay célébrité ñu si bari da ngay ànd ak ñoom ñu si bari nga nekk seen ay homme de confiance mën nañ ci tudd euh, Pape Diouf d'abord sa diggante ak Pape Diouf naka la doore ndax Pikine ji nga wax yow moom tamit fa la juddoo d'abord euh, sa diggante ak Pape Diouf buñ ci mëne ñëwal ñu sok di dem ci Cheikh Amar ak Balla Gaye sama diggante ak Pape Diouf mën naa ci wax lu yàgg lu sori loo xamante ni sax moom bu ko xoolee ay rey dana ko jaar Pape Diouf 2006 laa ko xam 2006 2006 2006 xam Pape Diouf je me rappelle très bien dama def ay di def sant Serigne Touba chaque at Pape Diouf booba mi ngi dëkk Jili Mbay comme xamuma woon bu baax nit ku baax la ñu Serigne Touba may wër di joxe ji ay soutien bobu Cheikh jom bay moo ma doon jàngal jàngi ah ay ñom Moussa Fall ñima andalon ndax man jang na xasaayit and ak faali ba fofu tay nan ma fa do man juga fa di and ak Cheikh jom bay ndax Cheikh jom bay sama andak ak mom sax dafa jitt suñu judd ndax sama rak bi top ci man khadim sama rak bi top ci man euh sunu ben bay bu baax bu ni wax baay Daouda faal mo jang ngentem Balla sama andak ak mom da jiitu sama juddu ak man ndax daayira ba sama papa yoron du tudd Kanzul muridina dubalees mi ñewon na bindu ci daayira ba sama papa nekkoon jëruñu daayira bi kon ñi ngi ma gis may andal ñep sama digënt ak ñoom ak ñoom jitu na suñu juddu ya ngi may dégg pap Diouf ma xamanté ak 2006 ma ñew diko indil soutien mu gennon bay doore ñew duma ko fàtte mu chaque jour ma nekk sama image ma ñew diko ko xaalé dogalé ak man nama kan nga soxlo man nga pap dama amoon ay jang diko ko tuddé jël soutien bi non non non nag ma bëgg Pape Diouf torop diko top diko top diko top ba mom ben bis mu ne kii di ma woo chaque jour du ma ko wuyu xam nga rek ta artiste xam nga ñu am na ñoo xamante ne ni duñ bëgg nga duggé leen noonu ki dina jéem xol découvrir ko ban façon nit la ci lama commencé du wuy xam nga comme sama diggante Sédio Mbaye moom xamoon na nako ma commencé suma fa démé diko passé passe Sédio Mbaye su ma ñuy dem euh, festival de la salam festival salam Youssou Ndour doon organiser suma démé tok nek ci ginnaaw Cheikh Mbaye da aw pap Diouf di setan? suma dem lele mu woma ma ne ma tay ñing lay setan non non noonu bi mu ba xamni ni ban façon nit la ci lan dugante nak man ak mom muy ku bax ñu bok seigne Touba mu bok ci mam Cheikh Anta Mbacke borom daru salam ak gawan bàyyi seigne Modou Mamour bàyyi seigne Moustapha Ceytu way bàyyi seigne Modou roxe fofu lan fof man pap Diouf non lan demee man ak mom ñu dem ak mom ba digënté bi nak yaatu na yaatu go xamanteni machallah suma ma la ci doon wax euh, euh, sax duñ fi jógee non la démé seen relation comme ni nga ko waxee fu ñu daan gis Pape Diouf dañ la gis wala tout le temps buy eh, way sa tur day jëp ci waay mi waaye dañoo gis ni Pape ñu mu daan àndal ñu si baari peut-être gisatuñ ko Papa Ndiaye Thioub gëj nañ gis mu ànd ak Pape yow mi aussi gëj nañ la gis nga ànd ak Pape c'est quoi le problème lan la ñàkk jot la wala da ngeen am bis bi yéen ñaar. non non non xam nga nag wax dafa jooy ñu ne ko looy jooy mu ne dan maa wax te waxam jotagul maa ngi koy suivre maa ngi daje ak moom hmm. mais gëj naa dem ci ay événement ak këram ak këram vraiment gëj naa fa dem. amun benn problème nag. Ah. non ne léeg-léeg xam nga sa liggéey daf lay tënk. bay bari yoo xam dootoo ko mën. Hmm. loolu kese loolu kese. mais dañ daan gis même loolu liggéey daan tënk-tënk tabaski maanaam bu daan jot. Hmm. ngay jël sa njaboot ànd ak ñoom dem ziyaari ji. ren gisuñu loolu. ren sama jabar tabaskeewu fi. dafa accouché ji woon. barke alquran sama jabar to wu fi dafa accouché ji won li rek la. d'accord d'accord sa digenté ak Cheikh Amar Cheikh Amar ngeen and and bu yag ñu dem ba ci digg bi ay dogal dab ko ñu koy war bu baaxa baax yenen problème di am ay audio ak ay jabar di fi indi fi am fi sa digenté ak Cheikh Amar naka la dooree. sama digenté ak Cheikh Amar ni mu dooree yalla dafa dogal ma ak rakam ji ni wax Kader ndjay muy taalibi Serigne salim Mbacké xam nga ma ngi london wax ay jang ma xamanté Kader ñu daje man ak mom ngentel marilo doomu ismaïlo Lo fekk présenté nan mako yagul dara 1 mois ma ñew ci ngentel ma seen Kader ñu nan Kader ndjay gi ñew Pa Mansour moko wax mi nga and ak gorom bu ne wax Omar Traoré ces jours bu Sénégal ma ñew ci 16 bima togon ma juk ci jox ko Kader mu tok Kader ki mo andal ne ko ki de boy bu bax la ndax li mu def rek cër la bi mu lugudi ci kërëm lu guddi gi la ma ma ñëw fa ñu tok waxtaan mu ne ma def na la suma frère xam nga yalla bi dogal di dogal di dogal di dogal di dogal lég lég suma ma kërëm diko sét lég seet mu may jox rendez-vous pour may dajé mom bundu kër Cheikh Amar benn jour ma ñëw fekk ko mu toog Cheikh Amar ci tundura bi ma ñëw nuyu ko nuyu grand bi Cheikh Amar jaar ci sama ma mu ne eh, grand kon xam nga ma mu ne ma xam na la de da nga jàpp ne xaw nala. la rek mais xam na la. ma ànd ak fierté nag kontaan ndax xam nga tey nit ñu mel noonu ñu ngi lay suivre fekk yow xamoo ne ñu ngi lay suivre bu nu jaaree sa tur nuyu la plaisir boobu ci nga xam cëru doomu aadama laa wax de day neex noonu nag noonu nag noonu nag ah comme nag géwal laa ci ndey di géwal ci baay di géwal pur et dur drosine xam nga lan mooy drosine géwal wax lu baax xam lu baax te di ko jëfe géwal moomul kalan géwal momul wax ju ñaaw geemul géwal mënul luddul lu bax rek bi ma gisé nonu wax deug yalla nak ma fekk ci fa ay nit ñu bax ñu xalal ma ci sama ak Cheikh bu di dem fenn mo xam ngénte mo xam magal mo xam lu mëna doon su dé wax ma koy ay cadeau mom Cheikh Amar Cheikh Amar tok nan ma tok sëñ Siidin mukhtar tok mu wax ma jottalil ko Cheikh Amar toog nan Serigne Cheikh mu Serigne Saali wax ma jottalil ko Cheikh Amar toog nan àdduna bi yëpp di dégg ma defal ko appelu xel ko mam fële ca euh, xabaan Cheikh Amar toog nan ma jottalil ko kàddu xel koom àdduna bi yëpp di ko gis kon lu baax laa xamanteeg moom ci lu baax loolu ma dem ba Kader Ndiaye moomu yëkkati bee màkk may def sant Serigne Saliou Mbacke Sorano 2014 mu woo ma ne ma li ma defal tuddee ma ci sa bis bi ma wër tele yëpp ah may nuyu may nuyu euh, di may nuyu waa TFM yëpp du nuyu Pape Cheikh mu invité ma yeewu leen ma publicité fa jàng yi Kader Ndiaye ne ma li nga ma defal ci dafa rëy ci man euh, lan lan nga jàpp ni man mën naa la ko defal ci sa bis boobu ma ne ko loo ma defal baax na mu tegal ma proposition ñett waaye bi ma waxee ba tudd bee màkk rek ma ne ko jox ma bee màkk boobu mu ne ma pour lan ma ne ko damaa bëgg a yóbbu sama papa màkk 2014 ci laa njëkk a yóbbu sama papa màkk te loolu moko waral kon nak man rëccu li ma doon Cheikh Amar ak képp ku njabotam ci nonu ci nonu ci nonu dem nañ ba Cheikh Amar yene ko gisal sen bop lepp lu mi def lu ne ak di wax lo nit muy lu bax seigne Mbàkke koy wax loolu sante yalla la makoy ñaanal yalla ci darajey seigne salim Mbàkke borom jàpp ndal borom njurul borom umul khara borom ñaari daare ca ngabu borom asaliha mang koy ñaanal dal yal na yàlla guddal fanam yal na yàlla wéral ko Ta yalna na yàlla kàttanal ko may nu ñi nga xamante ni ñooy ay fameem ndax euh, Cheikh daf may def yenn façon yoo xamante ni ku lu wóolul ku nekk rek du la defal ndax olof mi ngi naan ku nu wóolu yow la ku nu wóolul yow la waaye ku nu wóolu ba wóolatul la yow Cheikh di dox ay dox yu baax biir di ko fa wax di ko fa jafee xanaa xam Cheikh Amar nekk naa ak nit dund ak moom bokkandoo banu école ñu dem ba ñoom ñaar seen diggante jaxasoo am si maa leen jubale Cheikh Amar ñi ma ko loolu ñëpp ñoom ñëpp képp ku ci man amanteeg moom mal mal entendu man sëñ Mbàkke maay dox sama maay sama dàll di ci dox di ci dox ba lu baax amaat ci kon lu dul lu baax da koo gën loolu yëpp nag daje ma daje na ba naan ma sëñ Mbàkke joo bëgg lu baax ba tax na dinaa bref nii rek mais presse yëpp danaa leen joxaat dig daje def point de presse ndax weddu tuuma du ragal mais setal sa der la. ah taxawal taxawal fofu sa tànk <laughs> baatu tuuma la deg de ce qui veut dire que kon dal la am luñ lay tuumaal ci sa digënté ak Cheikh Amar wala dafa am lo def. wa no xam nga xam nga olof dañi setan waxul deug mais yak nam xel. Ah. ku ne yag de ya, fan yi passé degon nga ciow la fa am. ci ay ñaari soxna yeeg yoy gendarmerie dafa ñew ak yoy tay dina la wax ben wax li sama auto la nekkon mi ngi ma bayyi ci station bi ñukay raxas. waaw ah. xoolal li la la xam nga léeg Kamila, nit ñi dañ naan na lii kaamil la fekk du kamil couverture la rek man nak li le moo koy ibbil baqara ba nasi ken doy ma sédé xam nga kuma doy sédé ki dama japp ba sét julli tisbar jullee guma takusan mais man señ mbacké yalla mom lay jël sédé su fekké ni lolou ñi nga xamanteni dañ ne dama fay ñew te ki wax lolou

ma ñëw ba mu yem ci benn aaya na ma yow day santal yàlla ma ne ko tax mu ne ma tiflil ma tifli mu jël lii jox ma ko su nekkul sama oto su may wàcc dinaa ko téye kii laay jël seede bu fekkee loolu man yëg naa ko bi muy am wala xam naa ci dara yàlla ma sunu borom alak man du ma pion kenn kër Cheikh Ahmad dama fa yàgg jëf lu baax moom mu xam yim ma yàgg yónni yoo xamante ni ay vie privée la ba tey ba suuba su ma doon dee dama koy yóbbaale nit du ko xam ndax nit kooku laa ñi may àndal ñëpp soo gisee ñu ñeme ma loolu laa man damay dund li may dund ak yow ci fulla ci fayda ci respect munu ko am ku mën a doon kum mën a doon ma tegle la ne ñu seqaat jàmm nag waaye dootu maanaam am na loo xamante ni dootul man ak yow sama diggante man ak yow léegi nag ki nga xamante ni tey jii nee na moom dañ koo wax ne ko sëñ Mbàkke dafay jóge loolu am kooku de bàyyi naa ko ak yàlla sunu borom waaye ki ma ko wax direct dinañ ko jëflante man ak moom ba mu xam ni man du ma du ma du ma du ma du ma du ma du ma juddu téeri du ma mbadaan daal ndax fii laa dëkk. waaw bu descente gendarmerie boobu noonu lan moo waral descente bi ndax dañ dañoo jéññee sëñ Mbacke daa am lu wala daa am lu mu wala lan la ba gendarmerie di fa ñëw bañ na si. non non non non xëy na rek maanaam dama fa ñëw ba génn dem am koo xamante ni xëy na bëggoon na am lu ko leer. ba mu bëgg témoignage ànd ak gendarmerie dem fa léegi nag kooku comme dan maa xamee ak moom ñu ne dama faa ñëw ba génn gendarmerie ñëw xam nga li ma la te fekk man sama yoon néewu ci léegi nag dinaa ci doxee noo xamante ni kër goog yàlla na fa yàlla di def jàmm ak ñun ñëpp ba bu dama dara amatee dootu nu ma xalaat ma ndax man am na yoo maa ko mag mais alors kon yow loolu dafa am xel mu mu yàq ci kër ga ba am passage interdit wala ki la xamante ne la ko jiñ am ci xanaa déggoo li ma la kon maa ngi wax ak yow mais ma bima fa ñëw ba dem loolu am ndax yaa ngi may dégg ci ah, ni wax ne man ba ma fa ñëwee ba dem la loolu am kooku ma ni bàyyi naa ko ak yàlla waaye ki ma woo moom ba wax ma ko man ak moom la. kan moo wax ne da nga faa ñëw ba dem fa loolu am. ci kër ga la dëkk wala soxna la wala lan la. déedéet dëkkul ca kër ga de dëkkul ca kër ga de. ah mbir mi de leerul ci man ta xam naa ne leerul ci internet yi sëñ Bakay boo ñu gënee mën a expliquer nag sincèrement. mais leer na ci ki ko def. mais mais xam nga ñun bu ñu bu ñu bu ñu dee seetaan dañuy bëgg ñun suñu internautes yi man ni may nekkee à l'aise di comprendre man li ngay wax. Hmm. ñoom aussi bu ñuy seetaan comprendre sëñ Mbacke li muy wax lan la. barke Seydouna Mohamed barke alquran. damay rus nit mais duma ragal nit. loolu yàlla def na ko ci man waaye dama ne la nit dul la waxal lenn li nga dem ci yoon di fajaatal sa bopp wala ngay wax day mel ni da tooñ ba tooñ ñër bi. kon da nga porter plainte ci wax non lu tax kon wax ji dafa mel ni metti na la non dina ma metti ndax loo waaye du wuyoo na ko nuru man sama image nit du ko yàq te nit mënu koo yàq galo est ce que xam nga ne tey bu ma la tooñoom nan nga maa boole ak àdduna bi yëpp du saf hmm. déglu lii ma lay wax nag su la tooñoon boole nga mag àdduna bi yëpp du saf su la tooñoon tey kenn nga ma mën a wala ñaar balaa ngay yegg ma woo la la àq yow mi ma tooñ sama papa ak sama yaay ndax ñooñu ñooy sama example, waye tay buma la toñon tay ngay wër ñu yaq sama der rek di di sama manam di yaq sama der di wax lu ne duma ma ferege ñeente ndax amana yow koku nga may bolel man man nako gën demen mi ngi def man luma jombu, ndax dégg nga ma kenn dong la xamni defu fi waxu fi lu ñaaw luñ koy xolé muy sama papa ak sama yaay ñooñ doy nañ ma seede. Euh, Cheikh Omar kañ nga ko Cheikh Ahmad démb. Hmm. démb laa gëj a dégg. moom wax nga ko ci mbirum plainte yeeg la yooyu ñu la ji. non non xam nga nag moom kaay ma wax la nag ni ñu koy gis noonu commande la nag ndax dafa bari nit ñoo xamante dañ leen di tudd ci ay mbir di leen tooñ soo koy di ko wax loolu danaan la Cheikh man am naa doy loolu mu ne mu ne ma sama yoon newu ci nit la koo xamante ni leen jox dig pour pour dara. man maa ko koy duppee man projet bu ma bu ma nekkoon la ça fait six mois ci ginnaaw sept dinaa ko def ini inauguré ko tuddee ko ko waaw moom moo ko ji dinaa la netteel benn Alioune Ndog Cheikh ma nekk Allemagne màggal Touba jot mu tombé Covid. billaahi wallaahi nee na mu toog moom xalaat yor xaalis foofu ñen ñooy ay nitam. pour mu yónnee leen xaalis jàppale leen ci màggal seen Touba gi barke sëñ Touba mu yónnee ma 2 millions su kay naa Amar la ko jox ñu daje fii ci exclusif bi mu yëkkati jox ma waa li ma gën a fonkaatee Cheikh Amar te du ma ko fàtte ba ilaa yow mi diine may tudd sama doom kilifa yëpp toog Cheikh Amar ñëwagul mu woo ma téléphone ne ma heure bi waroon na ma faa fekk mais damaa nekk ci dentition bi ci dentiste bi sama dentition mooy metti suma don doon raam di ñëw sax danaa waral Cheikh Amar heure bi la ñew sunu danaka heure bi bi mi jot tuti takusan la ñuy door sama dom ta Cheikh Amar la doon xaar cieur la nak cieur la nak cieur la nak ba pare mu jël ma tek ma ci wetam lu mi wax ci lu bax mu wax ma jottalil ko yeen ñep ngeen gis kok lan la ko fayé motax lu am ci biir kërëm mu may metti ndax la xam xamni mom yeyewul dañuy wax ni euh, sa digënté ak euh, ñaareelam bi je pense Adama la tuddu sa digënté dafa tax lool ba nit ñi japp ni da ngay farak wala genre mbir yoy lool lo ci tontu suma ko xamé Cheikh Amara tax barke kaabatu rasul Cheikh Amara woo ba ma mu ne ma dama am soxna so xamantene ne yow bëgg na nga xamanté ak mom. nga and ak mom di ko ci sama liggéey ngay and ak mom di ko ci sama liggéey lérna woko téléphone passe mako jël numéro am jox ma jël sam numéro jox jox ko waaye booba tey lépp lu seex Amar di di di def ci wàllu liggéeyam ma ànd ceeg ndaw si mais mosunoo ànd wax lu ñaaw mosunoo ànd defi lobby mosunoo ànd di def dara naka su sudul noonu lu dul liggéey bi ma Cheikh Amar sant ci moom te sax ajjuma ma julli jee jumaay Serigne Cheikh Sali bi nekk biir Touba Almadi su ma fa génn këram laay añi jee li ma xam ci moom muy ku baax mën a teral nit yàgg na ma teral taraanga bu ne lay def sama diggante man ak moom ñu ne déeta waaye mu ànd ak man ba padduwaa ci kër papaam ak yaayam présenté ma papaam ak yaayam waa léegi loolu ak fii réew mi toll nit bu jaxasoo ak yow yenn yi rek munoo lu du rafetal ndax àdduna loo gis ci nettali lay mujj relation boobu laa am moom relation boo laa am képp koo xamante ne yaa ngi ci keppaaru Cheikh Amar muy lu rafet. kon li ñu ci wax ay tuuma la tam. moo tax man la weddi tuuma du ragal mais seetal sa der la. lii dama ko bérefin nii rek waa léegi galo ah, suñu groupe organe de presse bi ñaata ñaata ñaata ñaata ñaata kii moo fa nekk ñaata organe de presse. su ma fa dugaloon benn affiche rek ne sëñ Mbacke mooy woote organe mooy woote point de presse fi ni dina fi xaj. nan xaar loolu ku xam na ni. damaa nekk ci préparation combat Balla gay 2 tax na yu bari mu xaarandi te ku ne xam ne ni fan yee passé dama amum damaa amum tu tànk ñu ne deetawaay mu judd ci jamonoy préparation zénith bi ma aj ngéntali bi ma ajee ngéntali combat Balla Gaye ñëwaat ndax Matar Diop suba teel mënul def dara ma koy booleeg dara ndax moment boobu maa ngi koy jàppale ci liggéey bi ci wàllu communication bi gis ngeen fi doon dem yëpp ñooy ànd ma foofu maa ngi naan càpp naan di damay tudd waaye li ci neex du loolu am koo xamante ni jàpp na ni tudd naa bu yàgg xam nga lan la ma wax démb mu ne ma billaahi wallaahi barki seexul xadim xoola traiteur bi gën mag man maa koy fay te fi may wax ak yow ma tudd turam kon man Sénégal man lan lan man lan laa leen deseel mais tudd nga ci koo xamante ni dafa nekk ci combat bu am solo bu muy préparé muy Balla Gaye Balla Gaye aussi ngay ànd ak moom dem naa ba di la gis sax ci ay préparation mystique am sëñ Mbacké man des fois dama naan sëñ Mbacké man ñaata métier la am parce que man benn combat gis naa ko moom Balla Gaye muy géral Balla Gaye mystique am bi nan la demee yow ba nga dem ba ànd ak Balla ba koy yoral ay cumikaay ak yooyu noonu. waaw fii ñu toog léegi fii ñu fii ñu toog léegi gisoo ma woo su ma jógee fii ci moom laa jëm déggoo ma ne la ku yow la. ku nu wóolul yow la waaye ku wóolu ba wóolatul la yow a damaa am ñoom affinité bu rafet macha allah je di du mu nekk nit ku baax démb ñoo nekk ba minuit. tey jii maa ngi dem xaw ma kañ lay ñëw ca koo xamante ne ñu ne kombaam des na une waa léegi moom bu ma xamee woon lu ñaaw ak fi réew mi toll ak lu jëm ci wàllu làmb muy dute ak ñeneen yi li ñuy dute ci man moom dina ko dute ba di ma jël di ma teg ci wetam moo tax nit ñi nan xool. psychologiquement bu ñuy wax avant parler il faut réfléchir réew mi ñu ne man sëñ Mbacke dina fi dund ba dé kenn mënu kenn duma fi waxal lu ñaaw déggu man la duma ko doxé duma ko waxé ta kay ma xamal la dé yalla ma sutural ak sama liggéeyu ndé ak sama barké baay est-ce que xam nga ne ni dama né tok pat rek ndax olof nee na ku xam fukk bu la joxé juroom ñent da ngay téye noppi rek waaye xam nga né manké na ndëgg sërëxal bu nekk man dañ koy jéem ci man. baax boo baax sonn boo baaxee rek sonn nit ñi dañoo bëgg toujours ca la na nekk muy cadre ban ne muy lu bon nga leen ci fekk si waaye man su ma bëggoon def lu bon du dem sama deret moo ma ko mayul waa léegi nan lan lan la sëñ Mbacke Diop bëgg lu baax ñu lay gis ci lu bon xanaa loolu mooy lancer film kaboy génn fusée euh, bu indo lu baax loo dégg maa ca waaye lu bon loo dégg bokkuma ca bokkuma ci ay lobi bokuma ci ay tiaxan bañ ñaa ko direct ba damaa nakari det mom kay dañuy mën and ci ak njub ñu and mënuñu ko demal ma dem duma ma ferege ñeente ndax yalla mi jox ñep mi ngi may jox ma ngi sante te yalla day séddale ga nopp Balla de ma koy ñaanal ci combat bi yalla may ko ci ndam lu kawe ndam lu reey reey reey re, ci digënté mook am di Moustapha ñu xam ko ci tafatine ci barki Serigne bëgg lo amdi amdi mustafa la mooy am Amdi Moustapha la tudd. Ah. noonu la tudd de. mais lamb du yomb sëñ sëñ maa ngi lay laaj ne la sa relation ak Balla naka la dooree ba nga dem bay yor ay affaire ci mikaayam sama sama relation euh, ak Balla Gaye démb rek ñu ngi toog di ko nettali man ak soxnaam buri ma koy nuy di ñaanal yàlla sunu borom defal ko jàmm saako ilimaan euh, moom Balla Gaye waaye di nuyu bu baax soxnaam buri bàcc li bàcc sempre nekk nit ku baax euh, da waaw kom comme comme comme man ku ma ku ma xas ba miin man dootoo man ku ma xam dootoo ma bàyyi sens boobu laa am boo ma xamee boo ma xamul na xamoo ma waaye boo demee ba xam ma ba miin ma di nga ma jàpp ndax lu baax looy woote lu ne wala lu baax looy def lu ne maa ngi ca biir wax naa la ko sànq dama fa daan ñëw yàlla dogal eh, ma fa daan ndax sumbulu sama xarit la ma sa nekk mu daan ñëw sama kër di may yendu sil may dem ci këram yaayam nekk nit ku yaayam ku baax mère Gane Siri yàlla na yàlla oyofal ay ay yaxam sama diggante ak moom foofu la déparé ma ñëw ba fréquenté Balla Gaye a ah, comme nit la mi ngi ak ay bëtam gis na waa léegi nit ki du daw di la wuyu si nekk nit ku baax nga koy daw bi mu demee ba xam ma te yàgg nan man ak moom su daan ñëw mbapatu mbéy gee 72 heures yi man Fass laa dëkk dama daan dem di ko seetaani ba muuma bu géejawaay bi nga xamante ne mooy ànd ak moom muy Omar Fall mais dafa daan ñëw ma koy teel ci mukaay booba xale bu booba ay ay xale lan li ma leer nii ay ay deux mille deux mille sept deux mille huit jàpp deux loolu du tey léegi sama diggante man ak moom dem nañ ba relation am ci dem nañ ba ak mbokk am ci dem nañ ba ba ba lu ne am ci loolu la rek keneen ak keneen noonu rek waaw lii la rek. dafa nekk lamb bu capital ndax ñëpp nee nañ Balla yàqu na mënagul saaku yi alors ci defet bu métti muy diggante mag Boy Niang war a ñëw jàkkaarloo ak Tapha Tine mi nga xam ne dynamique de victoire depuis 10 ans déggul mu ñëw depuis fukki at mu ngi daan rek war a dajeeg moom war ko may revanche ñu bëri dundte yow état d'esprit bi baa la nekk ak forme bi baa la nekk ndax yéen a ngi nekk comme ni nga koy waxee ban jugement nga ciy def waaw jugement bi ma ciy def mooy combat bi li ko waroon lépp moom mi ngi ko ciy def te def na ko ci sax laax ndax 3 mois ku ko def INSEPS du ñaari fan bàyyi sa njaboot bàyyi lépp wan ko ginnaaw dem ngir uti ji xam-xam ngir gën a uti ji maanaam doole pour ñëw jàpp tafaatin daan ko mi ngi ci bu baax mi ngi ci bu baax a baax ñi ngi ci bu baax a baax a baax a baax yendalutul fanaanatul ndax combat bu ne rek bëre na ko fi à l'âge de vingt nga dégg roi des arènes li benn waaye doon wax naan Balla Gaye lekk mbër rek la defalul waaye lu ne defal nanu ko nan ko ñaanal yalla suñu borom bis bi mu jëm yalla may ko ci ndam mais bu dee entraînement mi ngi ci lu mu mëna doon rek pour mëna gagner combat bi rek ñi ngi ci. euh santem fan la tollu parce que dañuy sétlu heure bu béré bo amé défaite dinañ ni jeune bi li euh, ndigg li affaire yoy nonu est ce que blessure yoy nonu ñuy wax ci mom Balla instant ni ma ngi ci à 100 pour ëlëk bu leneen amé ñu baña fiéwu ci ay affaire de. wa yag na bële yàlla yàgg naa bëree blessure ba man sax dama ci daan méré ak mom yàgg naa bëree Belachir après yow sax doo comprendre fekk boo doonee boroom jom doon gaynde rek doon ga gaynde waaye fii may waxeeg ak yow mi ngi sant yàlla macha allah xam nga nag tey la dimanche làmb ji des na une semaine ci diggante bi ñaanu na yàlla dara dal ko fi de waaye ba fii may waxee ak yow mi ngi sant yàlla mi ngi sant yàlla bu baax a baax a baax di julli ci yonent bi vraiment mi ngi sant de mu ngi sant bu baax nag te na ko ñëpp gën a ñaanal rek ba tax na maa ngi ciy benn appel képp koo xamante ni yaa ngi nekk fans Balla Gaye ndax moom ñi ko bëgg te gisuñu ko moo ëpp fuuf ñi ko bëgg te mu leen di gis na ñëpp ñaanal seen doom la na ko ñëpp ñaanal xam ni moom mooy neexal làmb na ko ñëpp ñaanal mu daan dimanche la 21 jël bu rëy ci kàttanu sunu borom. mais Tapha Tine bari nee nañ bu Balla Balla bu xeex ak Tapha dina ko wàcce euh, ban stratégie de combat ngeen nar a indi seen diggante ak Tapha Tine. waxuñu woon loolu bu njëkk ba. Balla Gaye du ma daan. waa bii nii lay demeewaat. Tapha daa mën a xeex mën naa dóor. na taxaw na taxaw jàkkaarloog la Lion di Guédiawaye. am na waaye doo ma bàyyi. loolu ay wax la rek. bu ne la jaaral na ko góor du ne ma jaaral nii. Seydina Omar. non kooku yow xanaa nettalu na noonu histoire Seydina Omar. Ah. ci yonent bi sallallahu alayhi wa koku yow day morom ki te mom lañ ko tuddé direct te nenañ turondo bu buñ la ko tuddé nga jël ci mom juróom-ñaari jikko juróom-ñaari jikko yëpp jël nako ci turondo gis nañ ngeen di def bako lo xamné rotation bi Balla gay yoo xamné gën nañ ko gis ci mom ci répétition yi Balla gay di def ay rotation yu jéggé dayo lool lan ngeen ci bëgg wané yeen moy wané ni Balla gay non nappé ba dimas yo xam nga ni Balla bu bu génné kërëm mu neex bu touser mu neex bu ñëwee ambiance mu neex bu bëré mu neex lool rek la leen di indilat xam nga mom kérok bima ma ko jëli jé ànd ak waa Events may nuyu bu baaxa baax sama frère Baye ndjay borom Albourakh production Yalla na yalla defal ko jamm lamb ji mu jublu Yalla defal ko ci lu kawé ndortam di ñaanal magam ju baax ji abdul Aziz Alé ndjay waye du nuyu bu baax Masata Alé ndjay kérok bi ñu jëli jee interview ma anak ak modu. Modou 4 h du matin. Balla Gaye appel bi mu lancé woon boo doxee Guédiawaye li mu waxoon yëpp tàmbale nga koo gis dañuy marché njaareem bàyyi laay amo fiij miij ñëpp na banderole yi Balla Gaye numéro 2 yi génn gars yi nan ko ba tax na banderole yi fi mu ne nii waaw xaaral ma may la ci benn nga xool affiche su Balla Gaye 2 yaa ngi ni xoolal lii de la leen sant te ñu ngi koy def but ba nak dia géejawee gi yep ñi ngi préparer pour taxaw supporter sen doon dom mu mu japp am di Moustapha Tafatine jàpp ko daan kon ñi doon ñaan nanu ñaan na ñepp ñew ci combat bobu ñi ci jox ñepp dig daje. inshallah allah waaw xam naa balaa boobu dinañ defat yenen jotay ndax lamb ji euh, semaine bi yep mom moy nek actualité inshallah rabbi alors ñu jaajeufal la parce que instant ni war nga dem ci rendez vous bi mm. bàyyi la nga tàggatoo mbokk internet ni joxante rendez vous waaw xana di gërëmaat yalla bu baaxa baax di sante sama ñaari wajur di santat bu baaxa baax nit ñi ma yàlla boole ñep kima la wax ni sank daf ni sama tuddu bu soobe yalla dina yëkëti taranga gu toll nonu ta dana ma moy lolu moy première partie bi bugul ku ko tuddu waye ma ngi gërëm soxnam bu baax ndax lolu yëpp bu amé soxnaam moo tax ndax dañ ne derrière grande il y a une yàlla boole leen jokkale leen na asamaan ak suuf kon suma waa ji yow mi def loolu te yàgg def taraanga fii ci réew mi yàlla na sunu borom guddal sa fan te yàlla wéral la comme bëggoo ko la tudd du la tudd ndax nag nit buy def lu baax bëgg koo def ci suuf na ko ko bàyyil rek na xam ne ab cëram la la laaj ndax cër na kenn du ko téye bu la ko joxee rek na nga ko delloo du nuyuwaat bu baax a baax encore une Amar di ko ñaanal yàlla guddal fanam te yàlla wéral ko di ko ñaanal famille bi yëpp di ko ñaanal yàlla sunu borom yaayam ju baax ji yàlla na ko fi yàlla bàyyi bàyyi fi yaay yëpp ci na Cheikhouna Khadimul Moustapha encore une fois di gërëmaan ñëpp di ñaan yëpp ñëpp na ñëpp ñaanal Balla Gaye numéro 2 combat bi yàlla may ko ci ndam ci barke Sëñ Tuubaa ma lay gërëm bu baax Galo di gërëm bu baax Mans les parisiens la ñuy wax les parisiens waaw kon les parisiens waaw maas mooy borom Paris de. waaw waaw waaw di ñaanal Makhtar Diop suba teel ku ne xam limu li mu def. encore une fois loolu dama ciy ñëwaat. ndax euh, booba tey sax am na ñu may woo bëgg di def ak man ay émission ci euh, xew-xew bu rëy bi nga xamante ni moom la def euh, ci le 29 bii passé fële ca Paris ànd ceeg Sidi Diop Makhtar Diop suba teel ñu ngi lay ñaanal yàlla sunu borom yal na yàlla guddal sa fan yal na yàlla wéral la. yàlla na yàlla defal la jàmm defal la ko defal ko mboolem jullit waaye defal ko staff suba teel yëpp soo limee euh, Grand Fall lim nga Assane loo ah lim nga DJ Yves lim nga ñëpp du nuy les jumeaux du nuy Demba War du ñëpp ñi nga xamante ne ñoo jàppoon ci liggéey bi yàlla na yàlla sunu borom defal nu jàmm defal ko mboolem jullit yàlla wàcc ci réew mi jàmm di ñaan yàlla sunu borom yàlla na fi yàlla wàcce ndoxum naataange ma leen di jox dig daje ci beneen point de presse ci kàttanu sunu borom.